ci li nga xamante ne moom mooy écran bi tey nag ñu ñëw seetsi ko fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb wax dëgg yàlla instant bi nag ñëpp xam nañ feebar bi nga xamante ne moom moo lembe àdduna muy coronavirus bi di ñaan yàlla yàlla muccul ñu ci ci barki Seydina Mouhamed waa di ñaan yàlla rek ah dëkk boo xamante ni rek dugg na fa mu génn ak jàmm ak salaam te kenn bañ faa loru mm-hmm. waaw euh, bàyyi ma ñoon nag ñëpp xam nañu porteur de voix la day sensibiliser ñu bàyyi ko mu nuyoo wax ci li nga xam te moom mooy feebar bi ñu continuer li ngi lay nuyu maa ngi lay fay ginnaaw ma sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam maa ngi sant di gërëm samay ñaari waajur di leen ñaanal fan nekkee leen fi jóge ak mboolem jullit nekk mi xam yëpp di jullit may ñaan yàlla sama borom wàcc Sénégal jàmm wàccal ko fi kilifay diine yi kilifay ak àdduna bi yëpp yàlla wàcc fi jàmm. Baye euh, ba ma sensibiliser ba pare. Euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ni euh, tey. biñ fi nekk naan kan mooy Baye Mandione. Mm-hmm. parce que Baye Mandione mm-hmm. ñëpp xam nañ ko. mais mm-hmm. tey boo ñu doon résumé sa sant yàlla rek. Baye Mandione juddoo Caaroy géej doomu yi yaroo Caaroy géej màgge fi ba yàlla may ko fi tur tey ba àdduna gépp xam ko ma koy sant yàlla bu baax. di sant làmb di gërëm làmb damay wax ne man bakar ak may dee du moom sa xalab làmb ci àdduna. ndax tey bari na ay bunte yu bëree bare yoo xam ni suñu mbokki mbër yi am nañ ko porte boo fëgg mu ubbeeku làmb moo la ko may ndax da ngaa dugg ci làmb ji yàlla may la bay rek nga siiw ba àdduna yëpp xam la boo demee fi ni ñaane visa boo demee doorang yaa ngi dégg boo demee ci boo demee doorang ah même fu nit ñi dem sax di am problème yow boo nee fee cëpp si oto dan lay ber dugal la ndànk yaa ngi dégg kon nag bu fekkee da nga ci làmb ba làmbal may la loolu chaque jour da ngay gërëm làmb xam nga may wax ne mii man a sama mbër yu bari si bokkayam ñun ñëpp kenn ku ne fa nga dëkk yaa ngi dëgg say nawlay doomu aadama nga fa ne waaye sax bu nit di ñëw ngénte ci koñ ba wala xew bu laajtee danaan euh, koñ koñ ñoom koñ ñoom mórloo laay laay laajtee ne fa la fa la xew yi am xale bu ndaw moo la yóbbu ne la xew xew waa ngi nii wala nit ñi jëw caare di laajte boo seetali ba koñ ñoom baam joon xale bu ndaw moo la yónni fii kon nag loolu làmb moo ñu ko may kon dañu sant yàlla làmb bu baax a baax di gërëm làmb xam nga man nag doomu caaro mooy lu ma wax léegi fi laa yoroo fi laa fi la ma yàlla sama borom mayeetur ba àdduna xam ma fi man nekkoon fekk su may grand ku ci man li Ousmane Diop Xaarim Ndiaye numéro un ñoom Max ñoom ñëpp grand yi bari wax dëgg yàlla fi la nekkoon ñoom léegi Baye Mass Alla Gueye Père Rabel ñoom ñëpp nekk ay champion caaru géej fii ak sunu papa papa kan yàlla na ko yàlla sama borom te réer man démb ñoo fi nekkoon démb doon bëri ba génération bi demee nag suñu génération bi ñëw man ñoom Issa Pouye ñoom Xaarim Ndiaye numéro deux yaa ngi dégg ñoom amee dem ñoom rek ñëw yaa ngi dégg ñoom kilifa yi dégg ba dafa liberté doon sama rakk euh, Baam Ndiol junior mm-hmm. ak mbëri caare ñoom tërës ndir yëpp mm-hmm. daal di ñëw kon dañuy sant yàlla bu baax a baax te xam ne caaroo géej du mos a ñàkk champion ci àdduna mm-hmm. tey bu ñu bàyyi woon it yàlla day sambaat champion chaque jour rek maanaam révélation bu ñëw rek yàlla day génn caare champion kon dañ koy sant yàlla bu baax a baax rek rek doomu caare la te champion la mu ngi mu ngi béy waram ci arène bi surtout simple bi ba ci MMA bi kon dañ koy sant yàlla bu wér-wér te xam ne caare yi dëkku làmb la quoi loolu la quoi caabi dëkk làmb la. Mm-hmm. non non Khadim Ndiaye euh, moom moom moo Ousmane Diop suñuy grand la. ok waaw man ISAP yi numéro de ISAP yi benn. Mm-hmm. Euh, dafa bëri arène ci at mi bi ci topp ma doog a bëri même Khadim Ndiaye mu njëkk a bëri arène. waaw man maa leen mujjee euh, bëri arène quoi mais ci at mi la nag ñoom bi bi am na licence. Mm-hmm. ñu def ci ay weer man ma doog am licence affaire yi quoi. ndax sama yaay bëgguloon ma bëri. waaw ba instant mi ngi nekkoon ci ñaan gu metti di ko ñaan pour bàyyi moo bëree mu bañ na mu bëree après quoi xam nga ban ban topp si di ñaan di ñaan ba mu doog maa bàyyi xam nga mais génération boobu la saa bi man moo mag rakkaam bi topp ci moom laa maase am Ndiaye numéro deux maa moom ay ay weer lan magante xam nga kon nag dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax loolu boo am caare yi. waaw mbappat ma wax dëgg yàlla moom moom jël naa ay trophée yu bëree bëree bëri wax dëgg yàlla mhm. waaw ndax ñi ma topp mbappat dëgg xam na bu baax a baax ba léegi man ñi ma topp mbappat dañuy toog ñëw di man ma baa ma ñoon yow lan la dañu toppal ngay tëj mbappat ni façon tournoi bi na nga jël ko mhm. yaa ngi dégg dugg si bi xoolal ndax gaynde lu koy def nga jékki-jékki sa carrière commencé métti lan la lu xew affaire yooyu quoi mhm. may leen dara yàlla suñu borom la rek li may amee ndam di bëre muy neex daan doomi jàmbur bis da ñëw ñu daan ma doomi jàmbur daan ma dem seen kër li may bëri di am ay ndam daan sama jàmbur boo léegi da damay daan man tamit tey bu boo amee ndam euh, say mbokk jubilé ñëw sa kër gi ñëpp ñëpp tàccu nañ xam ne bis na ñëw mbokk keneen mooy tàccu mooy jubilé loolu moo am ci làmb ci kese mais fu soo fu soo drapeau bu ne jël naa ko wax dëgg yàlla nag. waaw waaw. Euh, euh, bëri naa bëri ñu ngi doon toj. Hmm? yee day saa man ay Séré Séras ay moolu Awatine ñoo ba patandoo ay saap ba ci Balla Gaye Balla Gaye ne woon na fi Mbawu Mbass Mbargaan bëre bëre na fii nii. bëre ngeen yéen ñaar non non bëreewul Babacar la fi bëre Dallou Dallou fii Mbawu fii Mbass mhm. après yu dem géej waaye foofu noonu benn tournoi mais tournoi daf mujj yàqu sax mujjul àgg. waaw mhm. ah, même même même génération ñoom ba patandoo encore. waaw mhm. ah, donc nag ñun ñoo jiit Balla Gaye ci mboppat tuuti rek. waaw. mais mbapat ñu gis ne mbapat bu njëkk ba ak léegi sax ñu bari ñu naan waaye mbappan moo neexoon billaahi parce que ñun danoon danoon jég guddi gi nii dañ toog naataay yàgg rek dégg tëgg ma ne gars yi loolu tëgg la ñu commencé di jëm dañuy di di wër rek ba keroog ñuy gis ma yenn saa yu sant sans bu demee muy làmb ñu ñu ñëw abuy seen bëre muy bu demee muy ay xumbal ay tànn bi ñu wàññeeku waa ñu hmm. bis hmm. mais fu nekk fa pooxaraat danoon danoon fa làmb bëre wax dëgg yàlla mbappat te mbappat dafa manqué saa nii ndax xam nga génération bu njëkk ak bii bokkul hmm. génération léegi bi xam nga day gis benn boy na si koñ fat fat xam ma euh, maanaam ne làmb làmb la bëgg booy topp ko gan bu ñu defee mbapat tey bu ñu demee bu ñu daanee benn booy yeneen booy mer yàq làmb ji affaire dem làmb commencé andi violence mi mbapat yi. Mm. après gars yi rek mbapat yi quoi. Mm. mais amoon na solo trop wax dëgg yàlla ndax bëri bëri ci la noonu feeñee quoi vraiment. Baam mm-hmm. mm. Ndiol saxale du mu mu demee. Hmm? waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax nag wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax waaw man moom may nekk xale moom wax dëgg yàlla moom da doon dem géej di mbaali géej waaw Moussa ànd ak sama morom dem géej bu nu seedoo ba pare ñoom ñëpp bàyyi yóbbu seen xaalis ma sama xaalis laa jël ànd ak ñoom ne lañ na dem kër gi bu ñëwee fii ñu teg sulu boo xam sa gën suñu ataaya ba génn meew bari sama xaalis man te ñoom téye nañ seen xaalis ñoom ñëpp may nekk ak ñoom noonu ba ni nekkee mag wax dëgg yàlla ma koy fàttali da sama xol day wax ni ab tabe dañ koy judduwaale moo dem ba ba nekk mag rek jékki-jékki wax da ngay joxe non non xam nga mais loolu nag moo a ne sama man ma ciy mooy sama xaalis ma bokk ak ñoom man loolu ba may kontaan loolu waaw xam nga ba pare nag wax dëgg yàlla xam nga suñu génération ak ñi bokkul encore dem ay tabax xeex tabax xam dem uti ay xaj ay kuti yàlla ay xaj fii affaire yooyu ndax xale affaire xale affaire xale la mais bu jeexee jeex na. Mhm. waaw dëgg yàlla mais nag ay affaire jël alal jàmm rek. Mhm. yu ñàkk a fay doy moom yooyu moom suñu see nekk wax dëgg yàlla loolu moom yàlla dimbali na si mosuñoo def yooyu moom ay naan sàngara ak ay def yooyu yenn yi saison yooyu moom. Mhm. yàlla di nañu si wax dëgg yàlla affaire xale ñun def nañ ko mais jaaruñu si yooyu quoi vraiment. waaw waaw ndax ay xale lan danaa def ay tuuri sikar encore di foowee sikar tuuri sikar ay xale lan wax dëgg yàlla loolu moom neexoon na trop wax dëgg yàlla. jàngee ay jàng naa kay waaw jàng naa mais nag arabe bi laa ko woon a concentré wu nag. waaw arabe bi ndax man dama ne xale bu ndaw sama papa yaa ngi dégg di waxtaan ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam yàlla na ko yàlla teeru yéen a dem. yaa ngi dégg di ci waxtaan nekkoon missionnaire ci diine Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam nekkoon ci ñi si war a woote Baye Laay léegi man man nekk xale moo gis paa bi def ay jàng affaire yooyu quoi man na xale bu ndaw ñu ma solal si sama yére man di ma yóbbaale si jàng paa man may si daal affaire yooyu quoi moo tax ma commencé jàng nag dama concentré woon ci arabe bi ma ne man comme ça papa day xam nga naa concentré wu ci bi pour bu ma màggee man may def ni moom mhm. mais xam nga rek man nga programme sa mbir mhm. ne man lii laay doon boo ëllëgee mais yàlla moo xam ni ngay doon waaw bu xale boobu yàlla dogal na ni man su ma damay ne ci làmb ji bëri xam nga yàlla may wëstu loolu kese la quoi. Mhm. mais ñun ñëpp a ci yem làmb amul ku judduwaale amu fi. Mhm. muy am na tur yàlla dugal la ci muy loolu ko. non sama baax bu jaar na ci. mais ma Babacar Laye bu sëraale ma moo nekk yow mhm. yàlla def si sama baax ba teel a bàyyi loolu. nii loolu tax man sama làmb métti woon man maa gën a métti làmb ci àdduna billaahi dama doon tere tere yu méttee métti ba dëgër bopp rek ànd ak gars yi rek di laxatu damay mbapat am na suuf gay naa saaku ceeb na ñëw ba poste ma ne gars yi du ma ko yóbbu kër gi ko jaay ñu jaay ko mu ñu jaayee mu ñu séddoo xaalis yëpp dem si woon Xaadim Njaay numéro 2 mu dégg maa moom Xaadim Njaay numéro 2 na fi na fi lamb ko tëggoon maa moom ñoo dem final ab gaz lañ tëggoon gaz bi bi demee final maa moom te ñun ñaar ñoo ànd duñ bëri xamoon ñu boole ñu bi dama ne jëlal gaz bi seen kër ndax su ma yóbboo gaz suñu kër sama yaay day xam ne ci làmba ji bëri ji ma jox ko gaz mu dem barki seen aliment bëri nañu yoof tournoi waa yoof ñu may dégg tournoi tournoi bi une semaine laa ko bëre yoof saa wu mooy ñëwee bëri ba a dem quart de finale la bu ñëwaatee gars yi yokkaat mbër yi ma rampe di rampe ba jël birinoo benn mu may dégg birinoo am na voté président yoo xam bokkoon na élection xam bokkoon na moom birinoo jaata kooku trophée la woon ma jël tournoi bi coupe la woon ak saaku ceeb ak cinquante mille francs bi ñu ñibbi si xaalis yaa ngi bëri dëgg mu ngi may dégg ma ne ko mbër may naa ma ne ko bi ah yóbbu ko seen kër bëgguma sama yaa xam ne damaa bëri jiwoon bi saaku ceeb boobu max ba bon borg wala ci guddi gi ma jëlee bi laa mm-hmm. bi ci digg mbappan mi jël ko bi teg ko foofu ci digg mbappan mi baax foofu gars yi ma ba xaalis bu mm-hmm. mais ba tey ma ne xaalis jaay ma yóbbu seen kër mm-hmm. biñ dama jaay bi ne seedoo xaalis bi mais rek coupe bi wala coupe boobu nekk na xaalis jaay ñu daanaka def na fa lu ma koy dogal ni si kër gi ma bàyyee na ma commencé nag hmm. yaa ngi dégg jël ko bi indi ko fii hmm. te émission bi ko nangam sa tur yi nangam nangam hmm. ab laayeen nga sénat lu ma am waa këram war doon fo nangam ak nangam yooyu la waroon wax sénat lu ma da kaa wax dana yéen ñu ma gëm boo àdduna sox dara na ngeen soxandoog ñoom waaye bu mu àgg seeni xol loolu la wax mu ne Ablaye nga Ablaye du fecc Ablaye yow ruukaat dëgg <laughs> yow yooyu <laughs> la wax waaw kay macha allah wax te xam nga ni génération xale yaa yaa bëgg a xam daal ci ngay tàmmee lu bari mhm. waaw mais moom moom xam ay dëgg ak ay fecc moom lu musul a bëgg bëgg ko moom loolu quoi vraiment mhm. loolu tax ñu moon tere bëri nag billaahi ma même maa ngi fàttali sama combat booy kay di mhm. ñaaroo loon bëri ma daan ko waaw bu njëkk bi dama ko plaqué deuxième combat bi maa moom ci laa ko dóoroon ci bakken bi yaa ngi dégg bakkan bi naaj quoi ñaari sa combat ñoo victoire mais ma ñibbi si kër gi fii fii ñëpp ñëpp fees dal ku ne jibile maire bàyyi ba ñëpp jibile ba pare ma kaay ma ñëw dugal ma ci bi dama xas a xas ma toog fay jooy bi laa xas yu métti moo tax lan moo tax ngay dóor kii ba génne dara tam si bakkanam affaire yooyu quoi mu hmm. ne ma jekkoo li la may def mun a a ma lii moo tax bëgg nga nga bëri affaire yooyu ma di hmm. ma ne man mii micro micro. waaw waaw man man mi daal lii daal doy na waar quoi man maa ngi def lii sama yaay xam nga bàyyi na ma bàyyi ñàkk pexe la mais xolam li wu ci quoi moom da damay am koo baax mu ne jox ndam muy noonu bi moom mu ma xam ni kii ma ko toppee waxam bi day wàññi sama danga dama dama arrêté fexe billaahi wallaahi tallaahi mm-hmm. demoon naa ba su may bëre su ma boo rëy dóoraat may sama yaay daal daal li waatuwaat billaahi daal na ma ci biir combat ba tàyyi dal na ma ci biir combat ba tàyyi xam rek yaay ma ko Pape ñëw nit dugg ci beneen man maa ngi dugg 2003 2004. waaw 2003. Mhm. waaw fee euh, ci fee bi 2002 di jàll la muy dugg 2003. ah 2003 waaw fa laa fa laa fa laa fa ci laa commencé bëri. sa premier combat yaakaar naa. Cheikh Ngiraan laa ko bëreel. maa ngi koy nuyu ndeysaan 30 000 francs la ñu fayoon. ko tëggoon. sëñ Bourou Dia boo boo jàllee gars yi di sëñ Bourou Dia bu ñu ñëwoon a jàllee. non maa daan waaw 30 000 la ma fayoon jox ma avance 15 000 Pape Yéri jël jël li am li fi am mooy sama financier yàlla gaay la Pape Yéri Jaxate paa bu ah. baax bu gore noo jógee dem ba yëmbal pour ndekki ci këram rek moo fi daax ndekki ci àdduna barki yàlla Pape Yéri ah. non 11h lay ndekki ba 3h. bëri ah. daaw day ndekki ndekki ñu dem paa bu baax billaay ñu fay ma trente mille jom avance quinze jël lañ ci am. mu jël lañ ci am mu des ak ba sept mille xaw ma ma jël jox saa yi jox mère bi rek jëlal ma mère jox mère bi. Ah. waaw waaw man kay sama day moom avance yi mère bee ko moom sama new ci. sama yaay laa jox. affaire préparé man may man taay maa maa ngi doog a si affaire yooyu samay téere maa ngi defal sama bopp. jël ay fudan laa doon jël def ci bitee yëngal. bu baax a baax dajale yëpp defal samay téere def ci ay jël benn fas bu gudd def fi ñetti xeer fu na ma ñëw fa pita ba mu naaj jël guura guusu ko ci weer si naaj bi après day day après boo ko lii am day ñàng moo weer daal def billaahi di di bëri daan. te daawoo dem ci sëriñ. maa ko doon defal di bëri daan bëri lu ma ñetti combat laa def ma ci maara sama ñeenteel bu combat ci lay doon ci maara te boobu benn paa yàlla na ko yàlla yërëm gasam sama dëkkandoo woon fii sama yaay moo noonu demal kooku mu ñaanal la comme ni da ngaa dëgër bopp da ngay da ngay bëri demal ba da ci bàyyi sama mu jëm may benn bitéel bitéel bi ma may laay téye doolu ci ndox njar ko ay bitéel bi bari nga fi yàlla moo fi nekk quoi vraiment billaahi ma am dam maal waa yow ah, non ma dem am dam yàlla moo dogaloon parce que sama combat yi ndaw wax dëgg yàlla moom yàlla dogal la maam ci ëllëg ëllëg bu garaaw mm-hmm. chorégraphe maa ko njëkk a ci làmb barki yàlla mais gaay naa ay booy ñaak ay tajan tajan maa ko njëkk maa njëkk a bàkku ba ci digg ba taxaw gars yi tëgg ko barki yàlla ba sëñ booru ñaa mu jëg mu ne baa ma jon boobu maa bëri combat yi nag monté gu ma dañu dëgg bi ma tuusa pare ñu dem ñibbi waat xam mais sant yàlla su borom bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla am moom sport bu noble la sport bu baax la wax dëgg yàlla mais sa ban combat nga sentir ni léegi nag man moom instant bi léegi ma commencé nekk ci million non sama combat Modou Awa bi mu jàllee. Uh-huh. laa jeex nag da combat boobu noonu. Uh-huh. Modou Awa dafa ñëw du ma fedd caaree la ñëw fii suñu boppam daan ñëpp. billaahi wallaahi taalaa caaree moo Modou Awa moo jógee Colobane Modou Awa Tine moo jógee Colobane ñëw suñu boppat mi ba Mbass Mbargaan fii gis fii. ba jour noonu dama feebaroon man. Uh-huh. li may feebar feebar ma sol benn tëre benn yore bu yem samay oom. ma ñëw taxaw di seetaan mi. Modou Awa ñëw daan ñëpp tout. billaahi wallaahi taalaa ma ma dëgganteeg moom ba war a bëre wàllam sar tes làmb ji teguñu si lu mat semaine ngi taxaw suñu combat arène maa moom jotu ñoo bëre mbapat loolu moo taxaw suñu combat arène loolu mu ñëwoon caaree fii nii fii lamsaar daan gaa yëpp tout ñëpp la daan ñëpp ñëpp ma dëkkanteeg moom ba nu war a bëre maa moom gaa yàq làmb ji yaay boobu affaire am na tension bu rëy ci am billaay ay supporter am taxaw ci boo sama supporter taxaw léegi jaaxle sëñ Modou Niang mu nga foog ñaar ñu bëri ci noonu la fa demee loolu moo ñu yóbbu nag ñu bëri ci arène ma moom foofu. waaw. yàlla may ma dem ci kaw mu doon combat bu méttee métti boobu moo gën a métti suma carrière billaahi dañoo bëri ma moom ba ku ne sel moo sa deret. bu tar bu méttee méttee métti. Mhm. juróom ma ñibbisee sama yaay dañ ma xool far fot nga bàyyi bëri ci nii wala ci naa sama yaay. dama da ngay bàyyi bëri ci nii ndax lii dafa metti lii waaye di mer affaire yooyu quoi man yàlla baax na billaahi mhm. affaire bu garaaw laa lay wax nii barki yàlla. nii yàlla ma ci yàlla may ndam nag ma ñibbis nag ci dama caare nag commencé gëm. ne kii bu ñu ko jàppale na dem quoi ko jàppale na dem foofu laa commencé nag di sentir man maa ngi bëgg a nekk mbërëm làmb mais ci des yëpp nag dama bëri noonu rek pour affaire yi bëgg bëgg nii xam nga. ak hmm. ambiance gars yi doog na fii yooyu. Hmm. mais Mamour Awa bi jàllee nag yaa commencé sérieux nag. Hmm. waaw ma nag léegi man sérieux quoi. di entraînement carrément di dem géej chaque jour di entraînement contact yi dem lépp ñu commencé def yooyu wax dëgg yàlla. xam nga di sant bu baax nag. boobu yaa ngi ci ban écurie. non écurie géej bon ñu écurie Thiaroye fii ni mm-hmm. d'abord man maa newoon écurie Thiaroye maa ngi Joseph newoon Khadim Ndiaye numéro 2 euh, ñoo fi newoon ak Issa yi. Mm-hmm. d'abord ba Khadim Ndiaye mu nga Mermoz Ousmane Diop mu ngi euh, écurie Pape Diop Pikine mbooloo la nekkoon mm-hmm. man maa newoon ci écurie bi Issa yi ak Khadim ak Papa Kane ñoo fa nekkoon instant boobu. ma jógee ci Moura woon nag ci leen ma boole maak euh, maam Góor Diouf mhm. waaw beneen beneen séeréer maam góor parce que gaa dama meroon ñu ne daan na kii nañ ko boole keneen mhm. ñu boole ma maam góor ma daan maam góor encore Issa ah. euh, Iba Mar Diop incha allah foofu mhm. ma jógee nag maam góor euh, fekk yaaram ngay bëri woon gën a combat bu neex daal daan après ñu monté ñu grand combat moom ma foofu encore ma daanaat ko foofu noonu waaw foofu uh-huh. jour boobu noonu Modou loo moo bëree spécial moo mbokk yi Modou Lo ak euh, ak kii les deux ñoo bëri spécial bi Papa Sow ak Sanda ñi nga ñoo bëri benn spécial bi boobu noonu. Mhm. yàlla may ma ndam ci yaram gi. Mhm. sa combat ak ki nga xamante ni waaye nu mu sax ba nga jógee ci ñooñu ñëpp pour yéegaat ci kaw. bàyyi ñoom mhm. mos ngaa loolu ñoom bàcc séerans ñoom kii euh, bëggoon naa cee bokk instant boobu noonu quoi. gasoo moom moo ko tëggoon instant boobu noonu. waaw gars bëggoon na ma cee boobu mais daf fekkoon man. ma amoon combat beneen promoteur ma bu doon gaso ma préparé combat na nag na ku soo ménagé ñoo ma ma ndax ñun bàyyi combat bi nga dugg ci kalaaf ma ne ko man du ma def loolu. Mhm. comme lekk na avance kii nan bëree mhm. ma teree dugg kalaaf quoi ndax instant may préparé combat instant loolu mhm. moom. premier combat premier daanu deuxième combat nag ci kii yàlla may dem sama kaw. Uh-huh. maam ñoom. ñu gis ni li nga wax. Uh-huh. da nga doon bëri ñi nga xamante ni peut di bëri di daan. Uh-huh. di bëri di daan di bëri di daan nga ba benn instant nag. tolloog ñi nga xamante ni. mën nañu woon say morom. mooy tey Gris Bordeaux. njëkk gën a bëri. fois bi. ñu gis. Mm-hmm. wax ci mm-hmm. ak Gris Bordeaux gars yi ba leen tooñ naan ay doomu ba léegi ah. Gris maa ngi moom bëri nañ ba pare mm. yaa ngi dëgg de gise maa moom sama dëju papa fi la toog ñu doon naandu ataaye dafa doole barki si laa limaam te loolu jafe na tey ay mbër mbër mu wóolu moromam ba dem këram naan ataaye ah. fii la toog ñu doon naandu ataaye sport moo demee noonu mënoo jéexas daan say morom yëpp mënta nekk ah. foo amee ay victoire di tegal ay victoire jàppal ni bis na ñëw nga am ay défaite Tyson tegoon na fi ay victoire di daan di daan ba ba nit ñi commencé di weddi yàlla naan naan Tyson euh, bu daanoo sorol ba nekk kër Baye Nges fee ñeseen mooy daan ku amul ku ma daan bi ku ma la daan sorol bi nekk ñeseen moo daan Tyson loolu dé déggoo nañ ko fi waaye ba dafa dem ñëwee dafa daanu yëkki li ñu doon wax yëkki ni ne gaal la yor ñëpp nañu yeb ci gaal gi yóbbu leen ba ko Balla Gaye di daan comme tey suñu te pourtant yëkki li mu fi def benn mbër du ko def benn bët def ko fi te mbër du ko fi def incha allah rabbi. ndax nga ne ah 15 roi des arènes moo ko mos a def mais fii roi des arènes ngay gisee jël roi des arènes am benn combat daal beneen combat bi gu daal la wala nga jël roi des arènes daan tey bu subaa ngi daal la moom moo fi am. mais moom moo ko fi téye nag bu man soxor ma damay wax te yàlla tax. du ma fenn. da jox mhm. ma ma lekk jox ma ma naan. musuma gis cent franc musu gis cent franc baax ma jon mais ku gis dëgg da ngay gis ah, 15 ans roi des arènes moo ko mos a def man de mosuma kaa gis ma fekkoo ma keneen ko def fa moo tax may wax moom fekkoo ma keneen ko fi def mm-hmm. fekkoo ma ko fi de moom la gën a yàgg wax dëgg yàlla mm-hmm. waaw waaw sa deuxième combat ak Gris Bordeaux bàyyi ma ñëw lu ko daan lu ko dal ko am lan lu ko daan ah mais dañoo bëri maam moom. ok kon ban xeex xeex bu metti dóorante yëfi góor amul année dawul daw ma ñu dóorante dóorante ba yàlla may ka ndam. Mm-hmm. mais bàyyi ma ñëw ban erreur ah. def mais erreur amul erreur man ni ma daanoo moom moo naa daanoo noonu ndax ndax xeex la rek xeex moom far fas kenn kenn am ndam. Mhm. la. Mhm. par force ñaata combat laa fi bëri ñaata ndam ma defoon non affaire nga combat boobu mhm. ma gën a ko seetaan damay kontaan ndax combat góor la. tànk amul daw amul aneer. doolante bay bëgg a dee barke Rasulillahi doolante wóññi si combat bi daanaka. combat bi. Euh, maa moom li ñu doon discours ko boo boole suñu ko war naa amal ay discours bu kenn ku ne sa morom ñu taxaw résister loolu noonu ba yàlla may a dem sama kaw kon nag nit euh, sa jour day dama damay wax ne tey euh, damay sant yàlla ci lu bari yaa ngi dégg ndax samay doom nun màgg ba nit ñi leen seen papa da doon bëri ñu dóor ko muy daw wala mi nangam ak nangam non non boo deelee bëri ba léegi mosu ñoo gis baa mi doon jéggi benn saaku mos am ba ma dëree bëre ba léegi kenn mos a gis ma ngi añeelal góor ki kaw suuf même bu dul làmb sax du ma añeelal góor si ma su ma doon dee du ma añeelal ngi dégg non xam nga affaire affaire la nit la doomu aadama doomu aadama la yàlla mu ñu sàkk moo nu moom ñun ñëpp tey su ma dee woon léegi fii tëdd awoñ bu tegee sama fii man ma ko daxal sama bopp kon nag yàlla rek moo am doole kon nag boo xasee ba yàlla suñu borom amatoo du ragal nit moo tax man maa ragal lu yàlla bind nit man maa ragal dara dara billaahi wallaahi taalaa man mën naa taxaw ci làmb ñaari mbër taxaw ba bëree kii ba paree bëree kee ci même bis bi billaahi wallaahi taalaa ñu mel ne alors barke Rasulullaay. Mhm. rum bi leer. ba nga jëlee ah. ci Gris laa bëree ak yàlla may wekk ndam. Mhm. ma bëree ak Moussa Dioum sama combat ak Modou loo ñëw. ma dugg parcelle ma bëree ma bëree ak Modou ba pare. ma bëree ak Modou Lo ba pare après waaw bu doon war naa fay combat yee. ba ngay bëree ak Modou Lo. Mhm. bu neex ñu bari ne. version yi nag bari. gerte waaw xam nga moo tax sama combat Modou Lo lu ko taxawal sama ko Modou Lo sama combat Moussa Dioum moo ko taxawal ndax xamal tax mu taxawal ko ma damaa dem parcelle daan fa kii euh, daan parcelle yaaram Guèye laa fa bëri daan ko yaa ngi dégg euh, daan fa Moussa Dioum encore xam nga léegi ma daanee Moussa Dioum sama signature ak Moussa Dioum nag foofu noonu affaire yi quoi euh, bi li wàcc sama signature ak Moussa Dioum instant boobu noonu am ay wax yu fa jub quoi non man Modou Lo laa bëri doog a bëri Moussa Modou Lo nga bëri soo waaw Moussa da nga dugg parcelle dugg sama combat Modou Lo moo taxawal sama combat Moussa Dioum loolu laa bëggoon damaa juum waaw kay moo taxawal mhm. ndax booba noonu euh, maa ngi bi mu jàllee dafa am ñu seetaan euh, Moussa Dioum benn journaliste laaj ko yaa ngi dégg ah. naka baam yoon ak bi ñuy bëree baam yoon jàpp na ngeen baam di ko yu bëri Modou Lo mën la sànni benn coup mhm. léegi tamit su la Moussa Dioum waxee nag journaliste bi naka li li man Moussa Dioum ngay waxal Modou Lo ngay wax man Moussa Dioum la loolu moo taxaw sama combat moom après ci leen taxaw sama combat moom yàlla may wekk ndam. ba nga jógee foofu ba dugaat parcelle dem ci Moussa Dioum. Hmm? am Modou Lo boolewaat leen nga bëreeg moom. waaw mu bëreeg Moussa hmm. yàlla muy champion def fi preuve bu ne. daan fi ku ne yàlla may ma ndam si koom. Hmm. man moo ko de yàlla moo ma may bis boobu ndam si koom. ndax dama ko noonu la ma mënoo daane ndax noonu bëri a pare mu toppaat ba ba mu fekk ma dëkk moo tamit fa saawul bëree bëree gars yi yàq mbapat moom tamit ba dajawaate aaren incha allah yàlla mayal ma ndam ko am ma neex hmm. daan mbër hmm. xam nga lan am na bëri yoo xam ñoo ma daan hmm. barke Rasul laay boo boo ñu tëjee si néeg maa moom ta dama jaabi ñu ma ray leen si néeg moo wax ko tey pour muy leer làmb ak ak bu dul làmb nii bokkul de làmb ak budul làmb nii bokkul moo wax la secret boobu tey am na mbër yoo xamante ni muy def làmb boo dem di bëre ji am nañ moo fi lu ma war ma tiit mais bëri na mbër yoo xam daanan barki rasulillahi boobu tey ñoom si néeg ma rey leen pour muy leer bokkul de leer laa la wax. Hmm. bon Sénégal mbër yi fi am fit bariwul mbër ma wax la ko ñi fi am fit moo bariwul a monter rek genn wàll gépp gàllaaj la ñuy mutali ko ma wax la ko tey. Hmm. billaay bu gàllaaj doon silam maa ngi dégg xaar Ndiaye di ko wax wax dëgg bu ci gàllaaj génnoon. Hmm. billaay ñu bari dañuy bàyyi bëri. pour mu leer. gëmoo ko. pourquoi gëmuma gàllaaj gëm naa gàllaaj am na ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne gàllaaj mooy moo ne ñaan mooy ngàndaayal julit te ñun loolu il faut ñu ñaan. Mm-hmm. mais pas nag comme gàllaaj di def lu bon ak. yooyu yooyu man dunu ma yooyu de am ma gët bi toog sëriñ si naa nga defal ma nii mala wax ma la ay nit wala ay mbër aw ma gët mais gàllaaj bi mu wax ne ma demee lii la. Mm-hmm. ndax nit ku nekk da ngay sa bopp. aar bi mooy lan pour làmb yi nit ñi cooy yi noon yi fii ñu ñi soxor ñi am na ñoo xam ne noo bon bu gunu bu ñuy xool ni bañ ko dafa am il faut nga am na ay muslaay yoo xamante ni dana koy sangoo yow mu blend la duñ man si yow cent francs loolu moo tax may sangu mais du ay def ka laaj pour lool doomu aadama wala ay làmbaag yi non yàlla tere waaw mais pour aar sa yaram quoi aar musulaay ñëpp a boo amul loo sangu amul la nga tari fa la xëy naas def ko sa dem sa yoon ay jullit lan mu jeex te yàlla aar la loolu kese la. ñu bari ne Baye Mandione dafa war a may chance booy yi. xanaa bi du jeex. ok da yàggat yi. ok yan booy fii ak booy amu fi fii ay magante amu fi ay magante benn dafa am ñaaraat. ay mbokante dafay am man man dama lu booy kenn man lu paa may essence ma laa ma damay bëre yow. nga yóbbu xaalis sa kër ma yóbbu suma kër mu jeex tak looloo quoi. la ko proposé woon di nga ko. Mour Anta bëri naan maa moom. ok bëri naan mbër boo xamante ni maa bëri génn wàllu mbër yëpp bu ñëpp toppoon def def li ma def man barke Rasuul làmb ci kenn du am problème mais day mbër yoo xam ne dañoo xam ne su ma bëree Mandiaye mii Mandiaye day fayeeku cinquante millions wala cent millions ma man du ma bëree moom ndax bu bëree day am cent millions wala cent cinquante millions te yéen ma ko du ma bëree ak moom ñu takk si biir loolu moo fi am. yaa ngi mais man dund ma loolu man su ma war a bëree yow nga am loo yóbbu sa kër dimbal say waajur man tamit noonu damay bëri ak yow keroog làmb yàggul la yem ci àdduna kenn du dee ñu àla ndax ëmb nga woon da nga doon bëri da lay laaj sa jëf bu sa jëf rafetee ñu yóbbu bu àjjana bu jeex te bu ñaaw gi tàbbal te bu yemal xiyaam sa safara yàlla bu fa kenn dugg na ñëpp dem àjjana bu jeex tag quoi loolu la làmb wax dëgg yàlla na gaa yi gën a waxtaan rek xam nga ñu waxtaan déggoo ñu xool lu ñuy waxtaanee parce que promoteur bi ak mbër mi ak manager bi ak amateur bi sponsor bi ñoo bokk làmb ji ak xam nga waxtaan suñu biir rek développé làmb ji bi de parce que làmb ji meloon jamonoy passé melatu ko wax dëgg yàlla moom non melatu ko. combat yi daa am amatul amatul fi benn combat moom boo fee woon ñu koy coow muy Ama Baldé ak Modou Lô yaa ngi dégg li ñu ko la yàlla na ko yàlla sama borom génne ci affaire yi quoi.

wàññi seen cachet. Mm. pour mën a bëreeg ah, boo demee nga laaj ko ñooñu ñu de mais dëgg yàlla dunduma loolu quoi man ma wax dëgg yàlla moom. bu ñu meloon ma làmb avance ndax bari naa genn wàll yëpp waaw bëri genn wàll ñëpp bëri naa moom wax dëgg yàlla moom yàlla may ma dem si ñoom ñi am dem sama kaw. Mm-hmm. loolu la ko leen defar làmb rek ba am nga la xala yàq làmb ci àdduna am mm-hmm. wallaahi na gaa yi wàññi kese yi waxtaan ak gars yi rek ku la bëre cent millions mm-hmm. bu la fayee soixante quinze millions nga dem bëre ji ku la bëre cinquante millions bu la fee quarante ba quarante cinq ba trente cinq millions sax nga dem bëri ji te xam ne laa mënoon doxee woon doxeetu ko sponsor bi na meloon melatu ko xaalis bi fi amoon amatu fi mais nag ay nit bu ñuy liggéey nag bu liggéey ba dem bay sooxe kenn la ku ne yaay génn sa poche sax su xaliwaat ba demee ba niveau bi kayewaat nag ku ne laaj la neex mais pour le moment nii dana gars yi xam rek jàpp ci quoi yàlla baax na. balaa ma soxla woon. arbitre CNG noo gisee coow li dégg nga ko. waaw. tey gis nga hmm. arbitre li ñuy kaas. Hmm. assurance la ñuy kaas. man de diggante arbitre ak CNG sama yoon new ci arbitre CNG hmm. lamba yu baax lamba yu bari yu fi yàqu arbitre yee ko yàq lamba yu baree bari yi fi defar arbitre yee ko defar hmm. mais li ñu yàq ci komba mu ëpp fuuf hmm. nan leen rajo ba sànni leen ginnaaw gi sama yoon new ci dañ ko liggante ak seen CNG ok eh, ah waaw du ma ci wax mook CNG ñoo am problème nañ ko liggéey seen biir ñoom man sama yoon doonu baa ma yoon new ci ñoom ñoo xamaat sama yoon new gi de arbitre CNG nan rayante sama yoon new ci lu ci ne ñoom ñoo for ñoom ñu ñoom CNG moom moo fa teg arbitre yi ñoo jël arbitre yi génne war leen fa waaw nañu utiwaat bi ñu bari. Hmm. instant bi li ñuy wax que Alioune Sarr na dem. Hmm. am ñu ne am na ñu fi gis pour ñu toog mais selon toi tey yow. Hmm. yow CNG. man de Alioune Sarr mu dem ak mu toog yoonu bàyyi ma njoon nekku ci xam nga ma intéressé yàlla may ma combat. yaa ngi dégg na ñu fay ma ma jël xaalis yóbbu su yóbbu suñu kër dund ci ak sama njaboot yaa ngi dégg de su ma yàlla mayee ndam ma jël su ma yàlla mayee defet ma jël xam nga wax mais diggante CNG yi ku toog ak ku man bàyyi ma yoon sama yoon new ci. mais xanaa bàyyi yow man CNG ñaata yoon la ñaata leen ma dagg man CNG li ma daggaa dagg su ma ko joxoon ar bi man du ma wax dara ñaata sama ñaata million moo de CNG yu ñu daggaa dagg samay combat ba dañ maa daggaa daggaa daggaa daggaa daggaa ba xaw ma ñaata million la ma dagg pour mu mais ni nga ma def loolu ba pare woon mu mu ginnaaw du lii li ngeen di say affaire du ma li ngeen di seen dara waa CNG bu leen neexee toog ba ba ba bis penc yi ma la xiyaam seen affaire ak ñoom amul amul ma xam ne nguur ak yàlla rek moo jeex nguur yàlla suñu borom kese moo dul jeex façon nguur gu ne jàll na fi waaye nag bu la yàlla mayee doole del yërëm say doom wallaahi santaat yàlla bu baax a baax a baax di julliwaat salaam alayhi salaatu wa salaam ñaan yàlla suñu borom feebar bu jógee fii wax dëgg yàlla vraiment sonal nañ trop xam nga ñu ñëpp delluwaat ci may nuyu ñu ngeen fekk si kër gi xam nga ku si man tey suma kilifa la Ablaye Thiaw mi ngi toog suma grand frère Assane ak suma mag ma jigéen xam nga sumay sumay doom ñu nekk fii sama soxna ñoo fi nekk yàlla yàlla soo borom aar aar njaboot yëpp waaw yàlla wàcc si jàmm dëkk bi jàmm ak xewal quoi vraiment yàlla aar yàlla jàppale Wassare Lamb ñu gën a Wassare Lamb ji xam nga boo boo Wassare Lamb coronavirus bi dama la incha rafet na yow. waaw di ko bëggawaat bu baax a baax muy Baye Mandione kon ni ma ko doon waxee rek à chaque fois bu ñu ko soxlaa day yomb ndax ci disponibilité am wax dëgg yàlla mu nekk suñu frère ba pare nekk suñu xarit di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di ko wax rek lépp lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén. yàlla aar ko muccal ko ci bàtti Seydina Mohamed parce que seetlu naa teraanga boo xam te ni xamuñ nan koy fayee parce que lii mu ñuy def rek teraanga la ñëw leen yéen su may sœur ngeen yéen su may rakk ngeen su may lépp ngeen te loolu nekkul ni ñëpp ñoo ko mën encore une fois naan ko kontaan nañ bu baax a baax a baax kontaan nañ daal loolu lañ loolu baax parce que borom baax la quoi di euh, di béggewaat nag koo xam ne rek yaa ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV di ko béggewaat moom mi nga xam ne moom mooy Basirou Diouf ah, borom wasaare loolu laa ko tuddee mu nekk koo xam te ne infatigable nekk koo xam te ne heure bu mën a koo acca rek mën a acca di ko ñaanal yàlla naan ko yàlla jàmmam yàgg di ko nuyuwaat bu baax a baax baara borom géejawaay di ko remercier moom it kontaan naa bu baax a baax ndax suma xarit la suma doomu ndey la naan ko yow yàlla na sa jàmm yàgg di wax rek kon euh, ni ñu koy waxee rek commencé guñu ah dañuy nuyoo rek mais après nag di ñaan yàlla rek coronavirus bi jeex ñu mm-hmm. defanteeg yéen naan leen koor gi nag ci kàttan yàlla am na émission yu doy waar yu leen di indi lien que pour bañ ngeen wér rek parce que yéen ñu taamu rek li ma ne comme que yéen a ñu taamu rek ñun tamit lépp lu ñu mën dee ko def rien que rek pour ngeen kontaan bañ a wéet Basiirou kese Wassare Lamb kese Fatima kese jox nit ñi euh, dig daje ba beneen yoon ci beneen émission jaajëf waay